ñaanal sunu ministre maire Matar Ba yal na ko yàlla yokk te may ko wér ak wérle di ñaanal ami lay doom ji yal na yàlla yokk te ko fan gudd ak yaram ndax ndey ami asamaan la ñëpp lay tawal macha allah bawul dara ndey amee ngi fépp macha allah tubaar fakal ngi defal ñëpp ndey amee ngi hôpital ndey amee ngi ci police ndey amee ngi ci lu mu ngi ci gàmm yi mu ngi ci lépp macha allah du ndoom ma tànk rek mooy tax ni def dara. déedéet ñu teg def dara te de amul ndomba tànk te li muy def ku am ndomba tànk munu ko waaye nag li muy def yàlla tax muy def yal na ko yàlla fay yàlla dina ko fay nag yàlla bu soobee yàlla dina ko fay te bés bu ñëwee nag yàlla na ko jig tam ko ak ku lu jël bu mu àndal di ko ñaanal yàlla di ñaanal njabootam gi di ñaanal ñëpp di ko wax rek ne àdduna moom dara yàggul te nag lépp di incha allahu rabi dina ñëw bu soobee yàlla. heureusement que moom gëm na yàlla te am na patience dëgg yàlla gëm na yàlla am na patience ndax ñu di ànd ak moom xam nañ li muy def du ne la gudd ne la bëccëg hôpital bee ku feebar wala nga am ordonnance ñu tuddee dama demal kenn day amilé ku entraité amoo loo lekk ñu ne ko dem ak kenn day amilé ku accidenté ñu ne dem leen kenn day amilé ku feebar ñu dem ak kenn day amilé macha allah tubaar fakkaal wax dëgg yàlla kon nag ba mu def mu def social du tey da cee yàgg. kon dañ koy ñaanal yàlla rek yal na ko yàlla gën a dëgëral yàlla taxaw ko sàmm ko aar ko musal ko te muccal ko musal mboolem julit ku fi taxaw ñu ñaan yàlla tabaski nga xam moom lañ jub si yal nañ ci dugg ci bismillaahi rahmaani rahiim génn ci alhamdulillaahi rabbil aalamiina di ñaan laat rek suñu ànd bii rek di ñaan yàlla yal na ko yàlla gën a dëgëral gën a dëggal ci barke Seydina Mouhamed. auzu na mina seytaani rajiim salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki Fatick salaamaaleykum mbokki Louga neem maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu suñu imaam bi nga xamante ne moo toog fii ñu ngi koy nuyu waaye maa ngi di nuyu képp ku yeewoo Fatick gannaaw ba ma santee yàlla julli si yonent bu tedd bi sant sama ñaani waajur maa ngi sant sama waa koñ ndax mënuma leen fay dama leen di bàyyee ak yàlla nee naa leen ne yàlla mi am pay bu ñu fay yal nañ ko bokk ci barke salaatu fatiha lii nga xamante ne moom laay jëf si taalibe yi yaakaar naa ne ba ma koy def depuis 2000 laa koy def ci taalibe yi lii nga xamante ne maa ngi koy def di ji ay soble ba ma koy def yaakaar naa ne yàgg na may def nag yàllaa tax may def yàlla mu ngi may fayal boppam bu yàlla fay yal nañ ko bokk ci barke salaatu fatiha maa ngay ñaan nawet bi ñuy dugg yal nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabil alamina mayo yi jox naa plus de 500 personnes 500 mayo jox naa ko xale yi su ma yàlla dimbalee tam na ma ko doon defee tam samay xara nga ne ma yeew pour préparer yi nga xamante ne moom laa war a defar pour yóbbu ko ci hôpital yi dimbale tam ñi ma tane te yàlla tax Euh, sa def naa tey ja tey li ma defar nii tey soble génne naa 5 tonnes soble jox ko ku nekk xam na ne soble fi mu nekk nii su métti na lool lool lool ay laaj ay vinaigre sama doole nag foofu la am maa ngi ñaanal yàlla yàlla yokku ma bu ma yàlla yokkee Fatick yokku ma yokk yokkal sama waa man nag logandéem laa am lu ma am logandéem laa koy indi nday ami Fatick laa nag waaye logandéem gii logandéem laa am logandéem laa am logandéem laay tiitaroo waaye dinaa tiitaroo logandéem waaye su ma paree nag Fatick laa Fatick ñëpp la nday ami Fatick ñëpp la maa ngi ñaanal yàlla daal yal nañu yàlla sàmmal boppam suñu daw dawdu yal na yàlla oyofal su ci seen kow maa ngi ñaanal yàlla suñu daw di yal na oyofal yàlla oyofal su ci seen kaw waaye bu ñu xoolee ne tey am na ñu doon àndal te yàlla mu ngi leen yóbbu fee ñu tëdd kon dara warul métti kenn dara warul naqari kenn parce que yàlla moo sàkk nit ñi te wax mu yegg sax yàlla la neex kon ñu ngi ñaan yàlla nawet bii ñuy dugg yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahiim génn si alhamdulilahi rabbil alamin imaam Diop gërëm nañ la sant nañ amuñ ku la ëpp tey taxaw nga taxaw imaam ci sama wet waaye taxaw nga taxaw Aziz Fall ci sama wet man damay wax ne man si dëkk bi laa dëkk waaye ba may def social damay jaay soow ak bisaab ba may def social 2000 laa ko commencé ñoom ngoo saat ñu ngi may déglu àddina dafa doy waar booy taqee tuuti ci politique loo def ñu ne politique la waaye jëmm yi taxaw yi seq ma xam nañ ne ñoo ma jur xam nañ ne ba may social damay gàddu sama glacière di jaay soow ak bisaab bu ma déggee sapeur yuuxu ma ñëw sotti ko jëndal euh, si temps yi moo xewoon may social hôpital bii ma yàlla nattoo nii ma ci dem yàlla mu ma ci nattoo yàgg na 2000 ba tey fu ma dégg choc dem naa lu ma yàlla wërsëgale ma def ci ordinance ba dem ñibbi taalibe yi may jaay tey million bi ma leen di jëndal euh, matériel onze mille francs laa jaay onze mille laa amoon jaay ko ci sama bitik sotti ko taala xuri mu nga mu nga ca dëgg maa ngi ca fen teg ko fa sotti ko séddale leen ko tey yàlla fay na ma maa ngi leen koy jaaya lu mat 1 million ma koy jaay te gis nga tey ba ma commencé 11000 euh, laa commencé tey jaay naa 1 million te manqué na. action bii ma def di ko defal samay waa su ma yeboon tey préfinance préfinance yi un million 400 lii ma séddale fii tey te parewu ma ndax bu su ma yàlla àndee suñu jullee ba pare. ku sañoon doo tabaskee hôpital yàlla tam nattu na ma ci foofu nga xamante ne pare naa xéwal li ma war a berndeel pour yóbbu ko hôpital xar yaa nga ne ca gannaaw ma yeewu si loolu la ma yàlla jouri tabaski si loolu la ma yàlla suñu borom nattoo ma koy jëf di ko sant yàlla di ko ci gën a sant nag parce que yàlla mënoon na maa def may nekk koo xam ne damay dem di tàllal loxo di ñaan waaye may ñaanal sama yaay jee toog mu gudd fan ndax bu guddee fan di ma ñaanal may gën di yokk ne sorool ba sa jumaa may ñaanal yàlla képp kuy magi koñ bi magi seen Fatick yal na la yàlla may wér dama ne ku may ñaanal ñaanal ma wër ak wër le mucc mucc le loolu laa soxla ndax ku may ñaanal wër ma am wër am wër le lu ma bugg a faj dinaa ko faj ndax dama gëm daan doole dama gëm ñàkk jëriñu si lañ ma yar si lañ ma xam dama wax ne bu kenn wéeru si mbagg kenn boo wéeroo si mbagg ni rek bu faqas ko nga daanu gëmal sa bopp. olof Njaay dafa ne ku ñaq di nga jëriñu tubaab ne tarawaay sël ki pay noonu la ah loolu la tubaab wa tubaab ne c'est travail seul qui paye c'est le travail seul qui lii la tubaab wax man ma ne gëm sa bopp rek a am solo man nday ami sama pañe xajul ci ron la li kenn du ma wéeru ci mbaggi kenn damay gëm sama bopp daan sama doole liggéey te lu ma am yal naa ko bokk doomu aadama yi lépp lu ma yàlla dul jox yàlla te du ma ko bokk doomu aadama mi yàlla bu suñ ko yàlla bu ma ko suñ borom jox. jëmm jii ngeen gis sama gannaaw ak jëm jee toog ñoo doon ànd di xaarante fii ci koñ bi di liggéey mindaan 15 ans laa liggéey mindaan ngir sama waajur bi ma amee 15 ans yàlla fay na ma ndax sama yaay taxoon ma def te sama yaay ak may fay. demagul fen dama ko ñaanal yàlla muy toog di ma ñaanal rek ma yokku ngi yàlla yal na yàlla may ñëpp wër li may lancé appel bi may lancé appel nag damay lancé ne képp kuy jigéen képp kuy jeune gëmal sa bopp daan sa doole ñàkk jëriñu coono du réer boromam te loo liggéey yàlla dina la ko fay. gëmal sa bopp liggéey ñaanal sa bopp li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom yàllaay fay pay yàlla moo gën pay mindeef li la ma yàlla na toom yàlla natt woon na ma tam 8 mars bu jotee ma dem sa armée yee toog fa wàcce fa ay kaamil te ren dinaa jox samay mbokk yi buñ tabaskee ba am 5 jours bu dee taw bi may nañu ko dinañ demaat ci armée yee wàcce fa ay kaamil ndaxte foofu la ñu dëkk fa la ñuy mujj fii ay wéerukaay foo la rek guddi guddi fële la kon yal nañu yàlla xiir ci boppam yal nañu yàlla xiir ci boppam yal nañu yàlla xiir ci boppam jërë ngeen jëf Njoko Njal